yow am na lu nga xam ne xam nga ko ci moom mais yàlla def bi may dem ci 40 ans yi damay sant yàlla li may yëg daal mooy damay sant yàlla wax alhamdulilah parce que yàlla may na ma force bi ma defee lu nga xam ne li ma bëggoon def yëpp defuma ko mais maa ngi sant yàlla daal mais li ma yëg mooy kontaan naa trop trop trop trop trop voilà. Euh, bi nga gisee sa sa ñaari doom ñu defar benn collection génne ko exposé ko nit ñi nit ñi kontaan ci euh, lan nga yëg. waaw kooku tamit bien fierté la parce que man damay wax ni ñaw. Moi c'est ma deuxième religion la couture c'est ma deuxième religion te gis na ni métier noble la lu nek nit mën na ci am. la gis nga li nek sama bop mënu ma ko ci ay modèle fii génneewu ma dara ay modèle amna yu bëre yu te lolu xamna ko lima ma génneewul moo ëpp lima ma génnee bop bi li ci nek dafa bëre te il faut ma génnee ko voilà donc pour man j'ai 25 ans dans ma tête man la actuellement lolu la gëm. Euh, fi lay yem wala am na ay yeneen défilé yuy ñëw ci ci kanam. non mais am na leen am na yeneen yuy ñëw ci kanam. mais bu nit ñi xamul tamit dafay xaw a metti ngay bëgg def effort bi semaine bu nekk day xaw a metti mais bu gars yi comprendre mun naa def chaque semaine et puis dama bëgg a créer ay star ci xale yi. muy ci tailleur yi muy ci mannequin yi wax naa leen ko démb. mais damay wax booy daal nañu gëm seen bopp nañu gëm seen bopp te nangoo liggéey di teela a yow di guddee wàcc di teel a yow di guddee wàcc man 6 heures du matin laay yow 3 heures laay wàcc 3 heures du matin 4 yow xam nga ci dara. jotu nit ku ñuul pas rek la xam buñu défé lool dañuy réussir man soxlaatuma dem France actuellement pas 5000 francs bu pas pas France barke Cheikh Je Khalifa demuma pas. je veux pas États-Unis dem j'aime mon pays voilà donc lool la gëm ça yi fi ñew yëpp samay xarit lañu dañ ma gëm ken xamuma ci ñak waaw kenn xam ma donc daal booy yi daal nañu gën a góorgóorlu nañu gëm seen bopp gëm ni Sénégal ñoo ko moom ñun ñoo ko war a liggéey ay affaire de gouvernement yi lii tamit dama ko def pour participer ci sama côté parce que tourisme ñun ñoo ko war a doxal mais faut pas nga taxaw ci benn angle pour jéem a nax benn tubaab suba nga dóor yuus beneen yooyu amu ci da ngay def lu wóor yaa ngi dégg actuellement nii li ma bloqué ci ay ñaw ça fait presque 15 jours ma bloqué tubaab yi ñëpp ku nekk jaa lem sa tisi toog ni ma élage dañ lay xaar ba nga pare donc là nañu ñemee nañu gëm seen bopp rek Ndiaye merci grand Fatou merci grand faatukaay Kaye Fatou ban témoignage ngay def euh, ci sa papa ginnaaw nag euh, gis nga défilé bi nga xamante ni organisé na ko tey di fêter 40 ans mm, papa bu baax la papa bu bëgg nit ku gëm boppam bëgg nit ku bëgg ku gëm dem man dama ci xam dara parce que dafa foo xam ne dafa dama fa jaar ak moom muy rayanteeg man. mais gëw ma ma naan bi daal du dem. lenn rek mooy sama défaut mooy mënuma ñàkkal sama bopp sama fayda gis nga fii ñi ma fi ma doon défilé tey nii presque mun naa wax ni quatre-vingt-dix-neuf virgule pour cent man maa dépensé samay moyen de bord.